wax ne xale yi boo leen xoolee gis ni nu mbégee ni nu kontaane ni nu may jàppale ni nu kontaane ci man damay wax ni pour la première fois wax naa ni je suis fier d'être Mécois je suis fier d'avoir fait ce que j'ai pu parce que je li ma fierté à travers ci bëti xale yi donc li may wax ni mooy li nu def itam du doy dañoo war a continuer liggéey bi liggéey bi nag ah bu nu ko defee ba egsi mooy am na programme bu Sénégal am muy le pape di PSE di sant nag le président Macky Sall pour soutien bi may jox man du ma ministre du ma du ma directeur général aw ma benn fonction mais fàttewul ni ñi amul fonction si ci la ñu bokk ñu leen di jàppale di leen teg ci yoon di wax autorités yi ñi am fonction yi ñu leen di jàppale mooy ministères yi pour ñu tabax parce que xam na suñu capacité à construire notre capacité à moderniser et notre capacité à mener de projets à terme donc ñoo ngi koy sant bu baax di wax nag xale yi ni nu ma bëggee di ma jàppale du ma bëgg ñu jàppe ni jàppale Macky Sall jàppale ko ñu fal ko dès le premier tour bu ñu ko falee dès le premier tour mu kon ne liggéey bu baax bi muy def ñun tam mu gën ñoo mën a jàppale kon ne liggéey bu baax bi muy def ngaay tey li ñu soxla ci stade mooy ay projecteur mooy gazon mais aussi li ñu soxla mooy ñu defaral ñu suñu tali yi suñu tali yi parce que Mekke day commune bu am plus de cent ans ñoo ngi def def naa plus de 62 projets et programmes dans la commune depuis que je suis arrivé res il reste tëli mënuma koo defar defar naa courant du sama du sama mission sene la ko war a def mais maa ko investir changer fil yi defar nañu ndox mais nañu defar tëli yi defaral ñu projecteurs yi defaral ñu gazon bi ñoo ngi leen sax stade bi coûté na presque téeméer ak juróom fukki millions téeméer ak ñeent fukki millions ak juróom ñett mais léegi nag dañoo bëgg a yokk investissement yi parce que soxla nañu ay projecteurs soxla nañu gazon soxla nañu yeen bu ñu ci jógee nag ñu dem tabax benn stade omnisport boo xam ne dañoo bëgg mu nekk benn stade intercommunal ñu bokk ko ak commune yu ñu wër ñu tabax suñu gox ñu tabax suñu terroir ñu tabax suñu territoire et dañoo bëgg fii terroir bii di Kajoor di Ngaye ak li ko wër mu nekk la locomotive di pôle territoire de Thiès. Thiam je suis le président de la commission des sports de la commune de Mékhé. yaakaar naa ni ici à Mékhé notre problème majeur a été réglé notre problème majeur a été réglé par le maire de la ville de Mékhé muy ñu am infrastructure yu baax parce que bu njëkk stade bi fi nekkoon baaxul mais bi mu ñëwee ci pouvoir bi mu njëkk wax mooy stade bi baaxul stade bi ay nit ñu fee sax dugg ba fi sport il faut ñu defar leen stade bu bees tàq te vraiment il a réalisé tey jii la ko doon inauguré ñu am stade bu bees tàq vraiment am na communion ak jeunesse bi jeunesse bu Mékhé ñëpp a kontaan ci moom ndax jeunesse bi ñu leen bëgg fu ñu fowee fu ñu fu ñu fu ñu defee seen loisir vraiment te loolu boo ko defalee jeunesse ak desee too ko dara quoi vraiment te yaakaar naa ni loolu maire réussir na ko waaw léegi nag euh, xëy na en tant que responsable moral li nga wax affaire violence bi violence bi est-ce que mi ngaay ba léegi dans les bi. waaw violence bi mi ngi woon ngaay parce que am na ay match yoo xam àggul ndax violence. mais yàlla dimbali nañ bi ñu waxtaanee ak tous les ASC de Mekhe yéen a koy constaté noo yéen a ko constaté constaté ngeen ko gis ngeen ni vraiment ñoo ngi ni di football suñu final aisément amul benn violence amul benn histoire ñoo ngi foo ñoo ngi ree te loolu lépp sensibilisation moo ko waral dañ sensibiliser toute la jeunesse de Mekhe xamal leen ni violence dañuy yàqal mais duñ defaral dara yaakaar naa ne xale yi teg nañ ko ci suuf te boo leen see ñi final rek xamal ngeen a xam ni vraiment waa Ngaye ah conscient ci violence baaxul Vraiment. Bon, je suis, pour la première fois, je peux dire que je suis très fier de ce que j'ai pu faire pour la ville de Mbeke. Parce que je vois une jeunesse rayonnante de bonheur, une jeunesse euh, qui s'éclate parce que tout simplement on leur a offert une infrastructure de taille qui est ce stade municipal Abdul Aziz Ndaw. Donc euh, Je me réjouis et je rends le chef de l'État pour toute sa compréhension que par les communes, par les territoires. Et il nous a permis de concrétiser cela par sa vision, mais de par le soutien constant que nous apporte le gouvernement pour réaliser l'ensemble des œuvres que nous avons pu faire au la ville de Meké. Le stade a coûté combien Le stade a coûté Et nous disons que c'est des investissements structurants. Nous sommes en train de poursuivre les investissements au niveau du stade, notamment en cherchant à avoir des projecteurs, comme vous le voyez, à avoir euh, du gazon et à avoir euh, d'autres infrastructures structurantes qui vont accompagner le stade. Et demain, construire un véritable stade omnisport au niveau de la commune de Meké et qui sera un stade euh, polyvalent, mais également qui regroupera toutes les communes autour de Mekki. un message à toute cette jeunesse à de la présidentielle qui approche. Ah oui, moi je dis, cette jeunesse, si elle me comprend, si elle me supporte telle qu'elle paraît, elle devrait apporter tout le soutien au chef de l'État. Parce que moi, je suis, euh, je suis le PSE, je soutiens le chef de l'État qui a beaucoup fait comme moi. Et je suis sur cette trace. Je, je, je fais l'action à l'image du chef de l'État. Et je demande à la jeunesse consciente, à cette jeunesse sénégalaise, mais cette jeunesse de Meké, de donner une deuxième chance dès le premier tour au chef de l'État, le président Macky Sall, pour qu'il puisse continuer ce que ses réalisations au niveau du Sénégal, mais qu'il puisse faire de notre pays un pays émergent et qui pourra permettre de faire véritablement un grand pas en avant vers le développement durable. Oui, demain, nous allons inaugurer l'abattoir euh, El Hadj Ibrahim Taban, qui est un abattoir moderne qui permettra d'éradiquer les abattages sauvages, qui permettra de d'avoir de la viande saine, et qui va pouvoir permettre d'avoir également une qualité de vie. Et demain, nous l'inaugurons. Et nous avons une série d'inaugurations Nous avons plus de 62 projets et en 4 ans au sein de la commune. Et nous ne nous arrêterons pas là. Jusqu'au jour des élections, nous continuerons à travailler. Et nous espérons que nous atteindrons nos objectifs. Nous ne pourrons pas construire Meké à poursuivre notre action, à poursuivre notre pour continuer notre travail. Mais même en sera sur le pas de la modernisation. Meké sera une ville en construction toujours. Nous voulons que Meké soit la plus belle ville du Sénégal, que Meké soit la ville la plus moderne. Et je demande à tous ceux qui ne connaissent pas Meké, ou qui l'ont connu il y a 5 ans en arrière, de venir faire les découvertes de ce qui se fait actuellement à Meké.